uqal bu gaaw loola mooma tiraanga Cheikh Abdou Khadar Mbacké Cheikh Abdou Khadar barsàq jël na waajam tiraanga sang ba fawqa kuy borom maqaama barsàq jël na waajur ite am xam-xam bala ay saak Cheikh Abdou borom Baxdaad déglul ma wax la melow Cheikh Abdou Khadar déglul ma la melow waa ndiyam xamuloo ko mooy borom lan waari aajoom la yàlla faj ba ñëpp xam ko yàlla wulil ko réew ba ñëpp gëm ko jiriñ di foo jamati lafañ ku lay joxati jumaa ku lay rëddati borom baxdaat ñibbi na dañuy tëju la jooy waxu ba far xalambaay garab yi sax jooy an Cheikh Jiili mu tedd ma siyaare leen bayti laay Madina ñàkk na waay ajal na junni gaay Cheikh Abdou Khadar mu tedd ma siyaare leen bayti laay Madina ñàkk na waay أجل نجني جاي سيخ بخادر متدما